gisee ni ñii dañoo commencé teg yoon bu boobaa ñu wax waaye man boo jëlee Modou Awa man sama cas personnel. Mm-hmm. jomaay sama xarit la. te waxuma la sax ay xaritu xaritu nii. Mm-hmm. parce que lu muy rëy rëy rëy li ma sëkk ak moom ci lu bari sëkkuma ko fax kenn. donc kooku bu yàlla dogalee mu dem ba jël réew. Mm-hmm. man li ma mën mooy accompagner ko ñaanal ko. jàppale ko. attends Gaoussou qu'est-ce que tu essaies de par laa Diomaye sama xarit la accompagner jàppale alors que nga nekk dans l'opposition nekk coalition jot na bi nga xam ne yéen a ko bokk ñoom ñu dem loo loo ma bëgg wax foofu waaw xam nga Mor Awa vous euh, rejoignez de ah. fois moom laay wax euh, ci benn groupe ñu bari yow réaction bi nga am moom lañu am dama leen ne nit ki am na ay rapport ay relation yoo leen di am mhm. yàlla def mu yor nguur am na si noo xam ne ne tey boo ko ko xeexee day mel ni yéene ko ko mhm. waaye tey nag wax dëgg yàlla bu ma yéenewul Diomaye li mu doon Ousmane Sonko bi ma ko yéenewul li mu doon bu boobaa ak soxor day nekk ci man. man maanaam yàlla atte na dañoo war a nangu dañoo war a nangu man taalibe laa man murid laa. Mhm. du ma fekk lu yàlla yaatal ma koy xatal xam nga li ma mën ubbi samay bët ñaanal leen jàppale leen xam nga jàppale leen mooy lan. Mhm. bu ma amee partenaire ma indi bu ma gisee loo xam ne lu war a bokk luy dimbali sénégalais. Mhm. ma jàpp ci bu ma gisee loo xam ne ne ñoom yoon boo xam ne ñu ngi ciy jaar du noonu ma ne leen yoon bi ngeen di jaar ma bind leen ou bien ma dem seeti leen. Mhm. parce que am naa possibilité am naa moyen ma bëggee gis jomaay heure bu ma neex mën naa ko gis ma bëggee gis Ousmane Sonko fu ma neex mën naa ko gis bu boobaa dinaa leen wax ne la yoon bi ngeen di jër nag bés bu ñu demee ba nga xam ne ne les intérêts du pays les intérêts du Sénégal sont mhm. en bu boobaa nag dinaa taxaw dinaa jàmmar la ñoom parce que sama diggante Sénégal day féete kaw seen diggante mais dañoo war a dépasse euh, dépassionner le débat un peu le débat. Mm-hmm. c' est pas ne nit ki danga koy jàppale c' est ne nit ki da ngay xool euh, li muy liggéey da ko si jàppale que forcément da nga ànd ak ñoom.